wala in saaltum saa yoo leen laajee man ana kan xalaqa moo bind samaawaati asamaan yi juróom-ñaar wal ard ak suuf yi juróom-ñaar la yaquluuna géñ naa ne danañ la wax intérieurement allah buur yàlla rek ko ko bind xul wax leen ne boobu xul neel alhamdulillah sant yàlla du foofu la sant alhamdu mboolem xeeti cant yépp lillaahi aji sax la ñeel yàlla moom mi bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar bal li fi nekk nag aktharuhum li ëpp ci ñoom yéefar yi laa na xamuñu ne yàlla lañ war a sant hmm? lu ci topp lillaahi ñeel na aji buur yàlla ñeel gu sax ñeel gu sax la nag lillaahi aji sax la ñeel buur yàlla noonu nga koy fiire Seydul Xaaji Malik El Hadj Abdou nee na moo daan bañ kuy wax yàlla di firi alquran naan yàlla mu ne ñàkk teggin la mu ne danga naan buur yàlla waaw ah, ndax suñ buur yii rek boo leen di tudd danga leen di jat son excellence gardien de la constitution monsieur le président de la république Macky Sall door a bind lettre bi pour jot. barki démb rek am na ku may wax bind benn lettre ma xool ko ne ko bu yeggee duñ ko réceptionné de ndax Marème Sall Marème Faye lañ ci bind ma ne ko dangay def madame la premier daam dame Marième Faye Sall ma ne ko boo ko defee rek danañ ko réceptionné xëy na li nga bëgg di ko am waaye Marème Faye jii bu yeggee fële lañ koy sànni nit dafa bëgg bopp surtout dara ji anzilu naasa manaazilahum wa yu'ti kulli di fadlin fadlahu yàlla ne kenn ku ne lim moom jox ko ko wàccee leen nit ñi seen wàccuwaay loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi moo ne anzilu naasa manazilahum wàccee leen nit ñi seen wàccuwaay waaye wayu yàlla nag ne wayu ti kulli di fadlin fadlahu kenn ku ne lam mérité woo teg leen ko ci loxoom sëriñ bi ne ko sëriñ docteur ne ko docteur sëriñ daara bi ne ko sëriñ daara maître bi lay jàng sax ne ko monsieur madame yooyu day boo ko defut day wàññi barke yegg na ba ci sa yaay yonent bi nee na kuy sàllalu yaayam du am barke te du am tubaab yi li ñuy bon bon rek la ñuy wax da ngay gis kuy jaar ci turu te seen yaay yee koy bëgg ndax boo leen yaay ñu ne dañuy gaaw màgget waaw man gis naa ko ci bu ma ne yaay de bu ma tojal mukk yow toj nga di ba nga amee doom booba toj bu ma toj ba nga amee doom nga toj nga naan ko bu ma toj li dañ dul seetlu sax li ñuy wax ba nga amee doom nga toj nga naan nga naan bu ma tojal mel ni nga bàyyi ba jël wax doom ji ne ko jàppal fii mu jàpp saako ceeb bi mu yëkkati bàyyi bi yëkkati bosam gën a jóg mu ne ko paa yow xanaa moo doole mu ne ko sama doole ji sama bos ak sa bos lañ boole ah, mu ne ko ci mu ko jeex na sama bos sa bos lañ boole jox la moo tax nga ëpp ma doole <laughs> jeex ah waxati moo tax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax lillaahi aji sax la ñeel buur yàlla maa lépp loo xam ne fii samaawaati mu ngi ci asamaan yi juróom-ñaar ci moomeel wal ard ak suuf yi juróom-ñaar lu fi nekk rek yàllaa ko moom amul lu fi yàlla moomul yàlla ne lu ngeen fi gis rek maa ko moom te bés dina ñëw ñu ñu xam ne moo ko moom te bët bu set it ñu gis ne ñoo ko moom bët bu set eh, eh, àddina jëlal la ko buggutoon mu dem wala déet bët bu set jant bi sox te boo fa mu sooyee arrangé wu la <laughs> waxuma dara sax dara dalu la waaye fa muy sooyee ñu la fa doon mundal chèque boo xam ne bu jant bi sooyee doo ci jot kon foofu arrangé wu la jant bi so arrangé wu la am na yu <laughs> yu ci bari nit ki bu sañoon jant bi du so waaye am na koo xam ne bu sañoon bër set léegi ndax àddina sotti moo boo gisee kiy doxal guddeeg bëccëg rek nga xam ne àddina bi am na ci loxol kum nekk moo tax noonu nga koy firee lillahi aji sax la ñeel buur bi nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala maa lépp loo xam ne mu ngi fi samaawa fi samaawaat yi ci asamaan yi juróom-ñaar wal ard ak suuf yi juróom-ñaar inna allaha naka buur yàlla huwa moom alxaniyu moo oomal ba soxlaalul ci mbindeefam yi dara soxlaalul mbindeefam yi dara ndax oomal ku dul yàlla nag soxlaal nga sa morom wala soxlaal nga keneen yàlla rek a soxlaalul kenn dara alxamid inna allaha huwa alganiyu alxamid moo sant boppam yi cant gii ci boppam la dellu xam nga lu tax sant boppam bu ko nit loon dara dina xëy téye lim mën mënal yàlla bu ko jinne loon dara wala malaaka dina xëy yàlla sant ko mu opposé ne ko defuma ko waaye yàlla soxlawul ku ko defal dara li yonent bi wax ne ñépp bu ñu àndoon di jaamu yàlla ni ko malaaka yi di defee du yokk dara ci nguuru yàlla gi su ñëpp àndoon di ko moy ba yées na du wàññi dara ci nguuram gi ndax ba muy nekk buur bindu dara ba muy nekk buur di mënal boppam di am di def di dindi booba bindu dara moom rek a fi nekk ci dënd bi booba xalam amut kursi yu amut lawxu amut dara amul arwaax sax amul moom rek moo fi nekkoon dana fi jëlee léppit desaat fi moom kott nam fi nekkee woon kama badana awwala marratin aw awwala xalqin te loolu dina maat ñeent fukki junniy at yoo xam ne dara du yëngu moom kese moo fi nekk muy bàqul boppam quarante mille ans ci atam yàlla wax de inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin dañ foog ne dañuy dee rek affaire bi jeex non buñ dee danañ toog di xaaraat quarante mille lañuy toog di xaar bu buuf tawalee ba géej gi ngacc suuf si tàlli foofu day tàlli njëkk étage dootul am garab dootul am montagne dootul am laa tara fiha am tan wala iwajan alquran laay wax de la yàlla ne laa tara dootoo gis ci ko suuf am tan montagne wala iwajan wala lu dëng léppay tàlli nekk benn dind comme asamaan yàlla nekk ca gàngonaayam nag ñépp nekk ci biir suuf lépp nekk ci biir suuf suuf ëmb lépp delloowaat ca bind bu njëkk ba kama bada naa awwala xalqin teere niil muy bàkku nag ma ni li ma nil mulkul ana kan la nguur ñeel tey rey naa ñëpp buur yëpp dee nañ man yàlla maa fi des quarante mille kenn du tontu mu doora tontul boppam ne lillahi l qahaar nguur ñeel na ki am puissance su not ñëpp te kenn notu ko mooy man door a dekkal nag asrafil ah waaw waaw mu ne borom daara ji moo daan wax ne ay na man saadu wa wa shaadu wa banaw al halakal kullu wa malakal kullu waaw ñëpp alag na leen ay na firawna ay na haamaana ay na namruus ayna ayna ayna ah ayna Suleymaan wa mulkahu ah ayna ayna halakal kullu ñëpp yàlla la ne leen des fi ci déndam bi di bàkku yàlla dara rëyut ci bëtam ndax moo bind lépp moo tax dara rëyut ci bëtam lu rëy ci sa bët rek rëyut ci bëtu yàlla ndax yàlla bind loolu lu tuuti la ci moom kenn rek a rëy ci bëti yàlla moo tax kum rëyati ci sa bët yàlla rëy ci yow mooy sallallahu alayhi wa sallam kooku rek a rëy ci bëtu yàlla moom la yàlla di xool ba mu yàgg mu ne kii xaw ma maa ko bind sax walla déet ndax ni ko bëggee yàlla day dem day poser question est-ce que moo bind rasulullah ndax ni mu ko bëggee kooku am sens ak am sens moo tax ku bëggatee am sens làqul ci ginnaaw dinga am sens ba doyal waaw ku làqu ci ginnaaw di am sens ba doyal sallallahu alayhi moo tax. nañ bàyyi xel yàlla am na de sant googu muy sant boppam nag doole ji mu am la ba not lépp te kenn notu ko moo tax muy sant boppam ndax ba muy ba mu fiy nekk bindul dara dara dara moom kot dong rekk allah tudd allah amul lenn lu ko fi ñaareel bind gi mu bind it soxlawul wéttal dafa yëg ci boppam ne bëggal na rasulullahi ndam bu créé li am lépp pour rasulullahi loolu rek la de waaye soxlaalul kenn dara loolu buñ ko toppee sax duñ fi jóg danañ ci duggi incha allahu taala yonent bi alaaji malik rek a xam yonent bi su ma nee alaaji malik rek nag waxin la sëñ Tuubaa xam na ko ñeneen xam nañ ko waaye waxin la réew mi neexu la nag xam nga tey bu ma noon jërëjëf Mouhamad Fadel bu ma noonu Mouhamad Fadel wala Maodo Diop ma ne ah mu ne ah, ma ne ko xewu Maodo Diop wa kenn desutoon Ndakaaru dafa tekki woon ne Ndakaaru yëpp a demoon Tiwaawan ci sa <laughs> xewu waa Maodo Diop bi kenn desut Ndakaaru kenn desul xam nga nit ñi dañ koy wax waaye est-ce que Ndakaaru yëpp a ñëwoon Ndakaaru bu ñëwoon dañuy xaj Tiwaawan sax foofu jeex na loolu waxin la. mu jaaxal waaw ah, kon mu jaaxal mooy dëgg xam nga moom la ñuy wax eh, eh, ni ñu koy waxee wax ñoo xam ne ñëpp nga ci nam ma ah, eh, tasmiyatu waaw kulli lil baadi waaw kañ am na am waaw mu ngoo ñëpp bokk ñu jox ko kenn ñu jox ko kenn ak lu kenn dong moom jox ko ñëpp jox ko waaw kañ bi lafzil umum laa bi lafzil xusuus ok bi lafzil umum laa bi lafzil xusuus fekk kenn ko moom moo tax daara jaa ngi fii waaw yal nañu yàlla suturaal wallaay ndeysaan moo tax yàlla nag xam naa fii la ñuy taxaw ndax julli mën a wadifa waaw waaw kañ gis nga bii yàlla di wax si moo gën a garaaw moo lay won bi bi paase ñoom Mansour Diop nag am nañ ci turandoo borom daara ji am yow yaa moom cër bi ci ëpp yow waaw yow xam nga man xam na xam nga li may wax moom daa sob de lu ne lay laaj waaw ca daara ja la ne woon ah gis nga bi yàlla daanee fële rek cant gim cant boppam mu dugg si ci nag ci loo xam ne bit la bu rëy boo xam ne ñun ñoo ko moom mu ne walaw donte am na li fi nekk liy mbir tey mbir li wër te wóor mooy maa lépp loo xam ne fil ardi mu ci suuf bu ngeen ko jëloon min shajaratin ciy garab wal aqlaamu giñ naa ci yàlla ne ngeen les ko def ko muy xalima hmm? du wal wal baxru min sajaratin aqlaamun wal baxru ak géej yii ngeen di gis ci àddina bi ah yamudduhu ma dolli leen mooy ma renforcer leen tëbb leen tëbb lay firi ma renforcer leen min baadi saba min baadihi gannaaw géej yi ngeen di gis nii ci àddina ma tëbb leen renforcer leen abu abhurin yeneen juróom-ñaari géej yu bokk la géeji àddina yi ngeen def ko muy daxa xam ngeen daxa encre garab yëpp ma lesal leen ko ak seen feuilles yi ak seen xob yi muy xalima géej yi ngeen géej gi rek doyoon na di géej gi rek bii bu amoo kaat bi rek doyoon na waaye océan bi ci àddina bi yëpp la wax de yëpp docteur nee na yëpp yëpp ngeen jël géej googu def ko muy encre ma booleel leen ci yeneen set géej yu ma am man yàlla sabatu ab xarin xam nga mooy muy ñaata lu tax mu indi set mu indi benn indiwaat set hmm? muy wit yàlla alxuraan dafa garaw xam nga lu tax muy wit dafa boole àddina ak àllaaxira boole safara ak àjjana moo lay yoon ne turu yàlla yi mën na la yóbbu àjjana mën na la yóbbu safara waaw ah, mën na la mën na la yóbbu àllaaxira léegi yóbbu dugal la àjjana yóbbu la àllaaxira léegi sóob la jahannama te yëpp tur yàlla lay doon xam nga noo koy déggee demal ca suratu naxli laha sab'atu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsum saba bi ñëw na lu ko jiitu dimbale ma lu ko jiitu waaw suratul li la wala suratul hijri seetal hijri ci fin bi bu fa newul rek mu ci ci nax naxli gis nga suñ borom nag ne su ma jëloon xoolaale ko en attendant rek mu ne su ma jëloon géej gii defal leen garab yëpp ma les ko muy xalima ak seeni xob jël géej gii defal leen ko muy encre waaye ma dolli leen ci juróom-ñaari géej yoo xam ne amu leen ko yéen man yàlla am naa ko ma dolli leen ko ci xam nga mooy juróom-ñett yamudduhu min baadihi sabatu abharin ah mu ne ngir ngeen bind turi yàlla yi maa nafidat du loolu ci topp hmm? wala ngeen xam kalimatullahi sama baat yi man yàlla mooy turam yi kon yàlla lima am bari na hmm? yaa ngi koy déggee ca laaye jële beneen ba moo ko moo firi bii eh, inna alladina amanu wa amilu salihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan gis nga fii sabatu abhurin te juróom-ñaari géej ji safara am fële samaniya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 walaw ji'naa bi mislihi madada qul innama ana basharun mislukum waaye nag yuuxaa ilayya qul innama ana basharun mislukum waaye yuuxaa ilayya annama ilahukumu ilahun wahid wa man kaana yarju liqaa rabbi falyacmal amalan saalixan wala yushrik bi cibaadati rabbihi axada maa nafidat kalimaatullah foofu booboo ko fay di mu gën a leer aaye jooju moo ko firi mu gën a leer mooy tax nga gis nit ku yor turu yàlla dem jahannama ku mel ni Balaam ibnu Baawara mu ngi woon ak ismullaahil azamil kabir te mu nga ci jahannama inna qaaruna kaana min qawmi muuse fa baaxee alayhim maa inna mafatixahu latanuu bil usbati ulul quwa is qaala lahu qawmuhu laa tafrax inna allaha laa yuhibu alfarixin wabtaxi fi ma aataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia wa axsin kama axsana allahu ilayk waaw kañ waaw kañ inna ibadi laysa laka gis nga bi ma doon wax sax foofu la tàmbalee waaw waaw gis nga dafa rëdd ne inna inna qaala hada siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun illa man ittabaaka min algaawin wa inna jahannama la mawciduhum ajmain laha sabatu abwaabin li kulli baabin minhum juzun maqsum inna almuttaqina fi jannatin wa uyun udxuluha bi salaamin aminin foofu laa soxla woon waaw ah, kañ udxuluha bi salaamin aminin bu boobaa nag wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin ala sururin mutaqaabilina yàlla mën a wax moo bind wax moo tax udxuluha bi salaamin aminin wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqaabilin laa yamasuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi muxrajin nabbi ibaadi anni ana alghafuru rahim waaye wa anna adabi huwa aladabu alalim wa nabbihum an dayfi ibrahim is daxalu alayhi fa qaalu salaaman qaala inna minkum wajiluun sadaqallahu alazim kon turi yàlla xam nga lu la yàlla di jàngal fii li muy bari bari bari bari bari li muy baax baax baax baax mën na la defar léegi mën na laa yàq léegi ni mu lay defaree boo respecté la ca yàlla bëgg ni lay yàqee boo ko manqué de respect jeex na looloo ci gën a gudd moo ci gën a gàtt waaw orma yam laaj teggin yam laaj yamu laaj yëpp boo ko mënul yamal ci ponkal mi ngand mi njool mi sallallahu alayhi wa waaw yamal ci moom kooku boo yemee ci moom doo yàqule doo lakk doo dem fen te loo bëgg ci yàlla jot ko loo yooti ci yàlla mu tege ci sa loxo xam nga laaye jii ma tudd mu jë tudd moom moom lay dox ah incha allahu dafa mel ni waaw kañ moom léegi mu jeex sax man bi daa guddoo nag man lool ah waaw léegi mu jeex tuutee ci des kañ man kañ maa yéex bon des na juróom-benni aaya ñu bàyyi ba àjjuma bii di ñëw ñu jeexal ko du moo gën waaw incha allah bu ko defee balaa ñuy dugg ci beneen saar am na ñaar ñaari aaya yu ma bëgg ñu ñu ñu góorgóorlu ci tuuti mooy bii ma mujjee tudd dinaa ci jël léegi tuuti ak bii nga xam ne premier samedi ci koor gi moom laa fas yéene waxtaanee en maris ndax daaw dama ko jëloon yéen ngeen ne julli la du julli euh, autoréversé naa sama wax daaw ci muñ lañ doon wax dama ne boo muñalul yàlla doo julli xamu leen dara man lu ma waxtaan bu ma wéetee damay defaat autoréversé di xool li ma wax li ma wax kañ laa ci waxoon kañ laa ci waxoon ndax war naa ko defaraat war war naa ko jubbanti bañ dem ba àllaaxira rek yàlla di ma nakk ngir li ma wax a tax imaam Malik xool leen ak dara jaam jure ji nee su ma yëgoon masala bu ma ubbee ñu caw ma yar ndax responsabilité wax nee na te xaw ma ndax kanamu yàlla ëllëg dinaa mucc walla déet ndax toog di atte ak di wax xam-xam ñu di la déglu nee na danger la nee na man imaam Malik su ma yëgoon ubbee gu ma ubbee ñu caw ma moo ko indil gis nga ba mu ko ñaanee lañ la ko am mu ji jundam dañ ko dóor bi benn loxo bi summeeku waaw ko dóor loxo benn loxo bi summeeku ci masala rek imaam Malik ponkal nii ngay dégg moo tax diine ji lu ne nit daj na ko ci te bu masaan di def nii alxuraan day toog tafsir kulma jàpp njàmbaram waaye bés bu mu waree firi xadiis da koy yërëm day dem sangu ji changé yére laal parfum yi gën a neex ne indi leen ma siis bi gën a kowe ñu indil ko ko mu ne tegal leen ma ko ci minbaram bi ñu teg ko ci minbaru rasulullahi mu yéeg ca kaw toog tiim ñëpp ne ki may jottali waxam nii la mën a mel <laughs> imaam Malik waaw ki may jottali waxam nii la mën a mel moo tax du ma wax mukk xadiis di mel yenn safaan yi gis nga sew sew boobu waaw moo tax gis nga aaye boobu ma tudd inna alladina amanu wa amilu saalihaati mooy salaatu ala nabi waaw mooy salaatu ala nabi waaw mooy salaatu ala nabi mooy jëmmi salaatu ala nabi bala junj la ramzu la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kooku fiilul amri la fiilul amri la yàlla daf la sant digal la ah kooku fiilul waaw fiilul amri la yàlla dafa def ba noppi digal la lu ma la digal nag maa la ci jiitu ak maag ñi ma yaakaar ñoo la ci jiitu waaye bii daf la won won ne la lële boo ko defee lii ngay am fële def la digal ne la lii nag boo ko defee ba noppi li ma def boo ko defee li sama malaaka yi def boo ko defee lii ngay am dégg nga wax bi moo tax mu ne inna alladina ca dëgg-dëgg gaa ñi nga xam ne amanu ñoo ma gëmal waa ji wa amilu yamuñ ca saalihaati luñ dégg ne yiiwu la rek ñu nga ca yàlla ne ñi dëkkee li kaanat lahum nekkal na leen ba noppi jannatul firdaws ajjana ja gën a kowe ñu tuddee ko firdaws te ku mas a génn àddina yonent bi daf daan ñaan yal na ko yàlla yéegal firdawsi moo tax ñu xam ne firdawsi gën a ci àjjana yi mas a génn àddina rek daf na ko yàlla yéegal firdawsi firdawsi mooy juróom-ñetteelee àjjana waaye bu ci ci jannatul ma'wa la bokk inna alladina amanu wa amilu salihati kaanat lahum jannatul firdawsi nuzulan yéen lu ngeen jàngoon ni mooy àjjana ji gën a kawe de dimbal ah jannatul maawa firdawsi ci maawa la bokk xam nga noo koy déggee kër gi bi mu paree nga def kaas ca kaw case bi ci kër gi la bokk wala bokkut ci kër gi firdawsi ci kaw jannatul maawa ah <laughs> boo tabaxee kër gi mbem sotti nga def kaas ci kaw ah kaas boobu mooy si firdawsi maawaa si ci kaw maawaa la nekk moo gën a kowe te moo gën a lix parce que kaas boobu en général gan yi nga fonk nga fa yóbbu walla de docteur ah VIP la gan yi nga gën a fonk nga yéegal foofu di leen berndeel moo tax inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi ñu ne lan gis nga nuzulan mooy seen ganaleekaay fa lañ leen di ganalee am na ñoo xam ne bu ñu leen ganalee ba noppi nag dinañ leen di door a affecté ci seen àjjana yi maawa nuzulan muy seen ganaleekaay waaye ñu ne li tax nag du ganale kese kese xaalidiin yi <laughs> ku fa dugg dootoo génn du ganale kese dañ lay ganale ba pare nga dëkk waaw inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzulan mooy wàccuwaay ak nganale yàlla buñ la gan wàccee foofu ba nga wàccee ba pare ñu ganale na la xaalidiina fiha da nga fay sax dàq abadan bu boobaa la yabruuna dootoo dégg fiiha ci àjjana ja iwalan déedéet inna alladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdawsi nuzulan laa yabguna fiha laa yabguna anha xiwalan doo fa digg mukk doo fa jot benn coono bu la fay daj dal laa yabguna fiha an fi laa yabguna anha xiwalan lu ci topp xul mu ne wax ma waxal ma gaa yi neel gaa yi law kaanal baxru bu fekkoon géej yi yëpp dafa nekk midaadan di encre li kalimaati rabbi ngir ngeen bind ci sama tur yi la nafida dana jeex al baxru géej gi la nafida al baxru géej yëpp dana ngacc jeex dangeen bind ba seen géej yi ngacc xalima yi jeex te sama tur yi du mat la nafida al baxru qabla lu jiitu an tanfada muy jeex kalimaatu rabbi sa turu borom yi sa borom yi mu géej yi dana ngacc xalima yi jeex te du jeex qabla an tanfada kalimatu rabbi walaw ji'na bi mislihi madada su ma leen renforcer loon yeneen juróom-ñaari géej ngeen di mbindaat it yooyee dana jeex te du jeex walaw ji'na bi mislihi madada qul neel gaa yi innama mbir tey mbir man rasulullahi ana man mii basarun mbindeef laa mislukum comme waaye mu maag yéen nag yuuxaa ilayya dañ wax ak man te waxuñoo foofu la affaire bi ne yuuxaa ilayya wax ak man te waxul ak yéen jeex na qul innama ana basharun mislukum yuuxaa ilayya waaye man li may bokk-bokk ak yéen ak li ma leen di supérieur te wonu ma leen ko yëpp annama ilahukumu ilahun wahid maa ngi yéen a bokk jenn yàlla te kenn la doonte maa leen supérieur maa ngi yéen a bokk jenn yàlla te kenn la annama ilahukumu ilahun wahid wa man fa man kaana yarju képp koo xam ne yaakaar na liqaa rabbihi dajeeg boromam fal yaamal na liggéey de amalan jëf joo xam ne saalihan ju yiw lay doon gis nga amalu saalih foofu la secret bi ne xam nga fal yaamal amalan saalihan la wax jëlal fal yaamal amalan saalihan nga téye téye ko boo ko téyee nga delluwaat inna alladina amanu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannatul yëpp amalan saalihan lay dellusiwaat law kaana al bahru yëpp amalan saalihan lay dellusiwaat boo calculer amalan saalihan mooy dëkk mooy tolloog sirru sirru sirru mooy cinq cent waaye sirru mën na nekk lu bon moo tax ku jox secret ne la sirru la ne ko sirru lan secret bu bon am na ji ñaari phase la dafa am neutre ak ba ca des phase ak neutre courant Ablaye Diop dafa am phase ak neutre sirru boo gis dafa am sirru am sarru am sirru boo commencé ci suuf muy sirru nga maas ko ci kaw muy sarru boo nee sirru am na sarru boo nee sarru am na sirru dégg nga li may ah, kañ moo tax bu ñu la nee 500 mooy sirru waaye mooy sarru waaye amalu saalix moom ba àddina tukki 500 la moo tax Seydina Cheikh na sama taalibe 1000 wala 500 salaatul fatih bu ma ci yemalee rek àddinaam neex àllaaxiraam neex 500 500 mooy 1000 moo tax Seydina Cheikh na junni salaatul fatih. dafa la xaajal 500 bu njëkk bi mooy àddina 500 bi ci topp mooy àllaaxira 500 bu njëkk bi mooy guddi 500 bu njëkk bi mooy guddi bëccëg moo tax mu ne à partir de minuit benn salaatul faati yi wecc na 500 salaatul faati yi ci bëccëg bi waaw boo toogee ba minuit nga dóor benn salaatul faati yi bu la neexee te yëg ci sa kaw xaran benn salaatul faati jàpp ba set essayé ko rek. jàpp ba set julli ñaari rakka Faatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun ñëw dóor benn salaatul faati ne yàlla orawaar maa ngay nelawi am nga 500 salaatul faati ah Seydina Cheikh ko te Seydina Cheikh kenn ñemewu ko feneen moo ko nee na benn salaatul faati à parti de minuit wecc na 500 salaatul faati yi ci bëccëg bi benn salaatul faati yi ci bëccëg ci guddi à partir de minuit. wecci na 500 salatul fatihi ci bëccëg bi